الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم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 julli ci sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mbokk yi ñu ngi leen di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sunu mbokk sëriñu daara yi ak ndongo daara yi ak doomi daara yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di leen sant bu baax ci taxawaay bu rafet bi ak liggéey bu rafet bi di ñaan sunu borom subhaanahu wa mu dëgëral seeni taxawaay sàmm leen aar leen li ngeen di liggéey ci réew mi yàlla sunu borom subhaanahu wa gis na ko nit ñi itam gis nañu taxawaay bi kon kenn mënu leen a fay yàlla moo leen fay yàlla mooy ki leen di fay yàlla yàlla fay leen moo tax la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne xayrukum man taallama alqur'ana wa allama ñi ko xam gëm ko xam nañ ni yéen ñi yàlla ñi yonent bi wax ni yéen a gën te yonent bi ku mu ne yaa gën rek yàlla moo wax ni yaa gën te ku dul yéen bu amee ngëneel ngëneelam dafa nëbbu waaye yéen nag seen ngëneel nëbbuwul dafa feeñ daje woon nañu daaw organise ko concours bii muy concours doomi daara yi jullit ñépp mbokk yépp taxaw ci sëriñu daara yépp jàpp ci ren itam bu ñu ñëwaatee di ko def bala nuy def dara dañu leen di sant cant goo xamante ne daaw lay tàmbalee balaa cant ren gi di ñëw ñaanal leen yéen ñëpp na ngeen yàgg fi loolu te wér kàddu gi ma yëkkati nag damay ubbi rek ci turu doomi daara yépp au niveau national pour ma mën a jox kàddu gi nag sunu porte parole bi nga xamante ne alhamdulilahi moom la waxam gën a mat moom la waxam gën a rafet moom la waxam gën a jub bu ko defee buñ ko ko joxee lépp lu ñu war a wax mu wax ko incha allahu rabbi bu ko defee mu xam ne rek euh, vraiment doomi daara yëpp alhamdulilahi ñu ngi taxaw di sant bu baax di gërëm di ñaan yàlla concours bi yàlla gën ko yaatal te barkeel ko kon nag sëñ Mahamad Mbuub kàddu gaa gi noonu incha allah nga wax ci turu doomi daara yëpp wane ni daal alhamdulilah kontaan nañu tafaddal mashkura ya muhammad bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi llahu fala mudilla lahu wa man yudlilhi fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa baad asalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi santaat yàlla bu baax di julli ci seyduna muhammad sallallahu alayhi wa di ndokkeel ñépp fa tabaarakallahu ci weeru tedd wu mag wile nga xamante ni mooy weeru alquran ci loolu ñu ngi sant di gërëm mboolem képp kuy sëriñ daara te di ko ñaanal yàlla yal na yàlla dolli seeni taxawaay yal na yàlla gën leen a jàppale yal yàlla gën leen a taxawu fa tabaarakallaahu seeni taxawaay rafet na comme ni ko suñu président waxee imaam oustaz Harouna Bachir Ba comme ni mu ko waxee rek santaat ñëpp tàmbalee ko ci daaw ñëw ba ci ren waaye fa tabaarakallaahu ñu sant tamit barab bii ñu ko defee kilifa gi fi yàlla teg muy maître Ousmane Diagne te fa tabaarakallaahu ki ko fi représenté di sëñ Fàllu fa tabaarakallaahu ñu ngi koy nuyu bu baax ndax ñoo ñu yaatal ci barab bi ba ñu mën koo defee fii te amuñu ci benn gàllankoor amuñu ci benn jafe-jafe ah di santaat ñëpp rek di wax ni concours bi comme ni ko Oustaz Harouna Bachir waxee noonu rek lay demee bëgg bégal jàngkati alquran yi nit ñi léegi dañu commencé di wax ni alquran léegi dafa xew ma wax ni juum nañu alquran musta xew yi xëy na koom gi ci dugg léegi ñu dugal ko ci di ci neexal ñi ci bokkoon di wane ni ñoom am nañu mérite loola rek moo ci yees waaye alquran moom du màgget du xubi daas màggetul bañ koy yeesal kon lu fi nekkoon la fa tabaarakallaahu di sëri di sant ñëpp ñi jàpp ci concours bi ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant tamit presse bi ndax tey fa tabaarakallaahu ku mel ni Actu Thiès ak ku mel ni Sud FM te Babacar Ndaw ñëw ak mboolem média yi yëpp ñu teewal leen fi ñoom it ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm moom daal mu gudd mu gàtt ñu tënk ko mooy sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp di wane ni nag concours bi doomi daara yi ñoo ko organiser waaye ñoom dañoo taxaw ca kanam rek waaye la ca gën a am solo yëpp ñi ko yore ñu ngi nii muy jury bi it ñu ngi leen di beral nuyoo ak cant ak ngërëm loo xamante ni mënuñu leen a fay di wax ni ay gor lañu ay yaaram lañu te loolu rek lañ séentu woon ci ñoom. ci seen njiit Serigne Bousso Thiam taxaw nañ ci bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax di gërëmat bu baax oustaz Moussa Ndiaye borom daara Chamsul Huda di ku baax Moussa xaaruñu ci dara taxaw na ci taxawaay yu rafet taxaw ci taxawaay yu am solo fa tabaarakallaahu te mënoon na doxe neneen waaye dafa jàpp ni alquran ku koy liggéey ku ne moom nga ciy liggéeyal kon nu ngi koy sant bu baax ndax lii lépp moo ko coordonné te du téléphone sax bu ñu ko jox crédit ni ko woote ci du paas bu ñu ko jox du dara lu ñu ko jox moo ko def ci dooleem ak kartanam ak bëgg-bëggam ak xelam mu rafet kon sëñ Moussa ñu ngi lay sant yow it bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla na nga ko yàgg a taxawee li Oustaz Harouna Bachir wax ñun ndox lañu du ñu bàyyi sunu yoon inchaa allahu rabbi fii it ñu ngi koy def te bu soobee yàlla bu doon kenn taxawuñ ci jàppaleñ ci it suñu amee suñu dërëm wala suñu ñaar dërëm ñu am ko ñun dana nu woote ñu woote ñu jàng alxuraan ndax tuyaaba ja ci am rek kenn xamul nu mu toll kon nu ngi santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di wax ni ñëpp ñi participer ñëpp gañe nañu ñi nekk ca daara ja toog sax gañe nañu alxuraan kenn du ci participer di perte alxuraan amul pertement kon loolu ci jëm boppam yal na yàlla dolli jàmm bu baax a baax a baax a baax a baax di wax ni it fa tabaarakallaahu bi ñu xëyee ubbee nañu ko kaamilu alquran ñaanal ñi nga xamante ni ñooy way dawlu yi jiitu rawatina koo xamante ni sunu mbokk la woon di sunu xarit ñu di ko wax Baye Dame Diagne fa tabaarakallaahu yëg gi mu nu yëgoon ak yëg gi mu yëgoon alquranul karim jàpp ci fa tabaarakallaahu ñu ngi koy ñaanal bu baax fa mu nekk yal na ko yàlla xaare aljanna waaye di ñaanal it monsieur le maire ci daluwaay bii nga xamante ni fa tabaarakallaa du hasard ñu jàng fi alkuraan yal na ko yàlla dëgëral yal na ko yàlla kartanal li mu yéene naalal Thiès est yëpp yal na ko yàlla defal tawfiix moom daal kon mu gudd mu gàtt fa tabaarakallaahu lu ci batadi lu ne ñi ma yónni woon mat nañu sëkk. waaye man lu ci manqué ñu jàppee ba ko fa tabaarakallaa yal na yàlla dolli jàmm dolli xéewal di gërëmaat bu baax yamar yàgg baax moom it ku ci jàpp la ku ci ànd ak ñun ci taxawaay yi la seen yamar yàgg baax soppe na bi. moom it ñu ngi koy gërëm bu baax di ko bëral ngërëmam ku deful dara nag kenn du la sant kenn du la gërëm merci ak jërëjëf moo gën a yomb waaye ku waxul merci wala ku waxul jërëjëf fa tabaarakallaahu kenn du la wax dara di gërëm tamit fa tabaarakallaahu euh, bashir Diop fa tabaarakallaahu mi nga xamante ni moo fi nekkoon daaw ndax euh, fa tabaarakallaahu institution la boo xamante ni daaw nii la nu yaatale woon ñi fi ñëw ren it yaatale ñu ñii yal na yàlla def dolli tawfiix yal na yàlla jàmmal réew mi yal na yàlla defal ñu tawfiix ak tey siir ak najaax di wax ni daal sant nañu ñi ci jàpp ñëpp rawatina jury bu baax bi amuñu seen pay amuñu seen cant amuñu seen ngërëm waaye li ngeen tiim muy alquran bàyyi nañ leen ak moom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu aouzu billahi min alcheytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim والصلاة والسلام على أشرف الخلق sayidina wa xabibina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa asxaabihi ajmain mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen di leen ndokkeel ci weeru wi di chehru ramadan di weeru kor weer wi nga xam ne moom mooy shahrul quraan ci la yàlla subhaanahu wa taala wàccee alquraan ju tedd ji ñu ngi leen ci ndokkale bu baax na nag ci fukki fan yu mujj yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne njot la ci safara kon ñun ñëpp yàlla ñu yàlla doon suñu njot ci safara bi barakatil quraanil karim ñu delluwaat di sant borom bi subhaanahu wa taala bi nga xam ne moom moo ni inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafizuun day yàlla ñun ñoo wàccee alquran waaye ñun ñoo koy wattu ndax suñu xoolee téere yi jiitu woon alquranul karim borom xam-xam ya doon dund ci jamono ñoo ko daan wattu waaye alquran moom yàlla moo ko jël di ko wattul boppam wattu gi nag moo xam wattu njàng mi la moo xam wattu mbind mi la njàngi mi ñu wattu ko ci dënnu ay góor walla dënnu ay ay jullit ñu koy wattu ba ila yawmil qiyaama kon wattu googu faw suñu borom subhaanahu jël téere bi def ko ci ay dënn loolu su amee nag dafa am loo xam ne dafay motiver wattu googu maanaam te ñëpp xam nañ motivation li mu amee solo maanaam wattu alquran concours alquran yi bokk na ci li nga xam ne dafay participer ci wattu alquranul karim ndax mën naa ne am na ñu bari ñoo xam ne mokkal lañu alquran ci jamono yi ndax concours yi ak it nit yi dafa bëgg lépp lu muy def mu am ci ak ràññiku maa ñu yëg ni moom mi ngi koy def loolu c'est inné dafa bu nekk dafa bokk ci euh, tëggeen wi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala daf koo tëggee li muy def mu yëg ko mu am ci ab dayo am ci statut kon concours yi motivation bu rëy rëy rëy la ci xale yi di wattu alquran alkarim kon taxawaay boobu ngeen ci taxawee yàlla leen yàlla fay barke bi ndax taxawaay la boo xam ne borom bi subhanahu wa moo leen missionné ngir ngeen taxawal ko loolu kon loolu lu réy la yàlla ngeen ko muurloo mu mel ni concours bi nag defe naa ne mu demee woon daaw rek lay demee ren mooy dafa am ñaari faraw da ñaari xaaj benn xaaj bi mooy ñi nga xam ne dañoo mokkal alquran lépp boole ko lan ak wit yaa ne xiroo amu jawwada mokkal alquran ma ngi koy jàng ak la ak lan dañ koy jàng ak tajwid ña ngi koy jàng mu set ba pare dapt benn riwaaya bi nga xam ne ci ngay ci ngay ci ngay ci ngay ci ngay jàngee kon defe naa concours loolu lañ ko mooy boobu mooy première euh, kii bi Euh, deuxième catégorie bi mooy ñi nga xam ne dañoo mokkal alquran dañoo mokkal xaaj bi dañoo mokkal Mariam Banaasi kon ñaari catégorie yooyu ci lañuy ñuy eh, évaluer euh, xale yi maanaam mokkal alquran lépp am na ñu ci bind defe naa am nañ ci fukki candidat ak juróom ak tamit mokkal Mariam Banaasi am nañ ci fukki candidat incha allah ñu xam ne nag euh, concours moom su amee faawu am ñu jiitu. concours moom faaw am ñu ku jiitu waaye yéen ñëpp jàpp leen ni am ngeen ndam ndax ku dem bay jogante ci alquranul karim maanaam jogante woon ci faatixa rek ndam la waxuma la da nga jogante ci kaamilul quran wala nisful quran kon yéen ñëpp am ngeen ndam ci yàlla dogal mu jiitu yàlla ko muurloo bacca ka ca topp bacca ka ca mujj yàlla ko muurloo ñu ngi yemale foofu kàddu yi lu ci rafet ñu xam ne ci suñu euh, ñu xam ne ci dogalu borom bi la waaye tamit lu ci safaanoo ñu xam ne tamit ci suñu euh, suñu suñu suñu nitale rek nit moom faaw léeg muy muy am ay rëcc-rëcc di profité tamit di ziar euh, monsieur le maire bi nga xam ne moom moo ñu yaatal ba ñu mën a euh, amal li ci jataay bi ak ci condition yu am solo yi ak ci climat bu bu stable bi nga xam ne climat bi méngoo ak li ñu bëgg a def ak sëriñ daar yëpp tamit ñu ngi kon ñu ngi leen di ziar di rafetlu jataay bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah ku ma toog ci wetu ku ñuy wax sëriñ fàllu Ndong moom mi nga xam ni moom mooy chef de cabinet bu la maire maître Ousmane Diagne ñuy jël kàddu nag ci turu maître Ousmane Diagne mi nga xam ni yàlla def na ni moom mooy maire de la commune bu Thiès Est yàlla def mu boole ñu ñun ñëpp yilif ñu ndax yàlla def na ni bi ñu jógee ci joŋante yi moom la askan wi tàll jiital ko euh, bu fi toogoon moom day doon nangoo doon surga ndax ci ay kanamu kilifaam rekk lay jëlee kàddu kon ñun bu ñu jëlee kàddu it mënuñoo weesu surga boobu même su fekkee ni yàlla def na ni ci wàll àdduna ñun ñoo jiite tur la ak cër waaye defe naa ni mënoo toog ak ñi nga xam ni ñooy ay doomi daara ngay jéem a xëccu benn cër wala benn kilifteef ci seen kanam loolu moom moom lott na ci ñun lott nañ ci loolu euh, di tàmbalee nag suñuy kàddu di sant ak gërëm oustaz Arona Ba mi nga xam ni moom mooy initiateuru lii nga xam ni mooy tarik alxuraan gi mu fegoo ci feggoo ko ki nawleem ñu mën ci lim ñenn rekk muy bàyyi moodu mbubb mi nga xam ni moom ñoo bokk dëkk r ah, te ñun waa r ñun ñëpp ñu di ko tiitaroo nag ndax eh, ci fan yële rek man mi ànd naag maire maître Ousmane Diagne ñu assister conférence bi nga xam ne association kaas bu mu doon def mu doon ci waxtaan waxtaan wu am solo daanaka man waxtaan woowu bi ma toogee déglu ma ràññee ko ci lool. sopp ko ci lool te di ko wax ñu ñaanal ñu yan wi nga xam ni moom lan nu yan yan wi oyof toll yan moom bu nee yan moom mënta oyof mais bu la sunu boroom téeñee moom loo mënta yenu dana oyof kon yàlla na nu sunu boroom téeñal boppam ba yan wi mën a oyof ba yéene yi nu am ci commune bii nga xam ni moom mooy Thiès Est nga xam ni yéene ji weesu lu dul jafe-jafe yi ak soxlay askan wi ñu mën cee taxaw ba képp koo xam ni rek am nga jafe-jafe sunu borom mën la koo saafaraal loolu daal moom moo ne woon ci yéene ji suñu jógee ci loolu aussi tamit euh, di beral cant ak nuyoo sëriñ Bousso moom yàlla dafa def ni man damay jàngalekat moom muy jàngale may jàngale ca benn wàll wa muy jàngale ci beneen wàll wa mu am ay jamono fa ma daan jàngalee ci yoonu xombol moom muy jàngale côté boobu boobu miinante wunu sax waaye su duggaan ci oto bi yéeg fekk ñu ci daanaka ni mu doon comporté woo ak ni mu doon nuyoo bokk na ci man li nga xam ne loolu séduwiroon na ma ba bu ma jóg dem ci moom euh, fexe saafonteeg moom xamanteeg moom kon moom yàlla na ko yàlla barkeel yàlla na ko yàlla taxaw ah di nuyu aussi tamit membre jury bi nga xam ni ñoo constitué lii ñëpp liñ naan ku lim juum mën nga bañ a juum waaye doo matal doo mën a wax ñëpp waaye bu nu sañoon kenn ku nekk ci ki teew ci saal bii rek dañuy jaar ci sa tur jaar ci sag sant saafonteeg yow tatagal la wax la lu baax li ñu xam ci yow ndax xam naa ni fii ñi fi nekk ñëpp ñoo ma gën kon ñu ngi ziar oustaz Mohamed Sari ak euh, oustaz Sidi juuf ak oustaz Cheikh Ahmed Tidiane ak imam Fallou Gueye oustaz Moussa Ndiaye ak ñeneen ñi nga xam ni jotu ñoo jël seen tur ñooñu ñëpp ñu ngi leen di ziyaar di leen sant di leen gërëm di leen wax ni alxuraanul karim nag moom ñun de ay jullit la ñuy woowee sunu bopp waaye defe naa jëf ji ñuy jëf au quotidien am na loo xam ne war na koo màndargaal ndax man de awma sens xaj na wala yàlla dama cee boolewul ba bokk ci ustaas yi wala xam ci alxuraan loo xam ni dinaa ko mën a tiitaroo fu ma toll waaye damay faral di dégg mag ñi di wax ni ki nga xam ni danaan su ma dellaatoon xale ma def lii te yàlla dénk ko doom te loolu muy wax buñ ko delloowaatoon xole mu def ko te defu ko bu ko yàlla dénkee doom it te defu ko ci buñ ko delloowaatoon xale du ko def man dama am sama taaw bu góor muy jàng dem CI CP waaye yàlla def ci man bëggu alxuraan te xaj na comme awma woon sens boobu ma génne ko ca école ba fi mu ne mu nga ca daara ga def na go fa ñetti at ñi ma wër ñépp dañ may laaj lu tax ma def loolu ndax dan naan ma nu ma doonee intellectuel soi-disant di jàngale mathématique doon professeur mathématique am soxna soo xam ne day jàngale ma génne ci système bi ma ne sama doom yóbbu ko ca internat ñu bari dalee na ëlëm waaye man mi ko def man maa xam li tax ma def ko ndax damay toog di sentir ak vide lu ma manqué te mu wóor ma ni su loolu newoon ci man kon defe naa taxawaay bi dana gën a am solo loolu bokk na ci li tax vidd boobu ma xam ne alxuraanu karim rekk a ko mën a def kon nag di ci ñaax sama bopp di ci ñaax ñépp ñu gën a fonk alxuraanul karim ndax jamono ji àgg na foo xam ni képp ku alxuraanul karim nekkul sa dënn danga nga yomba fëkk da yomba détourné danga nga yomba dugal ci loo xam ne bu ëllëgee di nga ko rëcc te loo xam ne nag boo ca amee xam-xam mu jariñ la fii ak fa nu jëm kon njëkkante la kon nag di leen ñaanal yéen ñi nga xam ni yéen yéenay jàngal sunu doom yi ak sunu jarbaat yi yàlla miy kàttanal yal na leen kàttanal yàlla miy wéral yal na leen wéral yàlla miy wërsëgal yàlla na gën a dolli seen wërsëg waa di wax ni maître Ousmane Diagne moom ku ko xam ci social nga ko xamee ku ko xam ci dimbali taalibe yi ak ustaas ak sëriñu daara yi ci nga ko xamee kon moom mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni honneur ak privilège ngeen ko defal ndax le fait que ngeen soisir institution bi nga xam ni moom la jiite ngeen ñëw jàng fi alxuraanu karim di fi organiser concours bu ni mel moom daanaka moom xolom sedd na guy guy guy guy guy te comme lii nag deuxième édition bi la ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom yàlla na ñu may may ñu fekke ak tal ba édition bi ñëwaat ñu mën ko organiser ànd koog yéen xajal ci Thiès gépp nag ndax tey lii moom fierté la aaroona fu mu dëkk Thiès Est oustaz Modou Mboub fu mu dëkk Thiès Est daanaka te ñoom ñooy initiateurs yi kon fierté la pour commune Thiès Est mu accompagner leen ca loolu kon euh, mbokk yi di leen sant di leen gërëm di jéggalu ci kàddu yi lu mu guddee rek waa di leen baalu ak di leen baal ak ni yàlla nañ doxal ak jàmm ak salaam ba liñ ciy séntu yëpp sunu borom defal ña ko jërë أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin arrahmani irrahimi maliki yawmi ddin iyaka nacbudu wa iyaka nastacin ihdina alsirata almustaqim sirata alladina ancamta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala ddallin bismillahi arrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi arrahmani arrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi arrahmani arrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi arrahmani arrahim qul acuudu bi rabbil falaq min charri ma xalaq wa min charri gaasiqin ida waqab wa min charri nafaasaati fi lcuqad wa min charri xaasidin ida xasad bismillahi arrahmani arrahim qul acuudu bi rabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas min charri alwaswaasi alxannaas alladi yuwaswisu fi suduri nnaas min aljinnati wannaas sadaqa allahu mawlaana alazim wa ballaga rasuluhu alkarim wa naxnu ala maa qaala rabbuna wa xaaliquna wa raasiquna wa mawlaana min alchaahidin allahumma rabbana taqabbal minna xatma alquran wa tajaawaz canna maa kaana fi tilaawatihi min alsahwi wannisyan aw taxriifi kalimatin an mawdiciha aw tagyiri xarfin aw taqdiim aw taqdiimin aw taxiirin aw ziyaadatin aw nuqsaan aw tawiilin ala gayri ma anzaltahu aw raybin aw shakkin aw tacjiilin cinda tilaawatih aw kasalin aw surcatin aw zaygin lisaan aw wuquufin bigayri waqfin aw idgaamin bigayri mudgamin aw izhaarin bigayri bayaan aw maddin aw tashdiidin aw hamzatin aw jazmin aw i'raabin bi gayri makaan faktubhu minna ala tamaami wal kamaali wal muhaddabi min kulli alxaan faghfir lana ya rabbana ya sayyidana la tu'aaxidna ya mawlaana warzuqna fadla man qara'ahu mu'addiyan haqqahu ma'a al-a'daa'i wal qalbi wal lisaan وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران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 wa baynana wa bayna annaari sitran wa xijaaba wa ila alxayraati kulliha dalilan wa imaaman bifadlika wa juudika wa karamika ya akrama alakramin allahumma ahdina bihidayati alquran وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن wa adxilna aljannata bi shafaati alquran warfac darajatina bi fadilati alquran wa kaffir canna sayyi'aatina bi tilaawati alquran yaa dha alfadli wal ixsaan allahumma arzuqna bi kulli xarfin min alqur'ani xalaawah wa bi kulli kalimatin karaamah wa bi kulli aayatin sacaadah wa bi kulli suuratin salaamah wa bi kulli juz'in jazaa wa bi kulli xizbin xasana wa bi kulli nisfin nicma wa bi kulli rubuci rifa wa bi kulli thumunin thanaa allahumma arzuqna bil alifi ulfa wa bil baa'i baraka wa bit taa'i tawba wa bit thaa'i thawaaba wa bil jiimi jamaala wa bil xaa'i xikma wa bil xaa'i xillaana wa bid daali dunuwa wa bidaali dakaa wa birraai rahma wa bizaayi zulfa wa bissiini sanaa wa bishiini shifaa wa bissaadi sidqa wa biddaali diyaa wa bittaa'i tahaara wa bizzaa'i zafara wa bizzaa'i zafara wa bil'ayni ilma wa bilghayni wa bilghayni ghanaa wa bilghayni ghanaa wa bilghayni ghinan wa bilfaa'i falaaxa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 wa ila arwaaxi jamii almuminina walmuminat walmuslimina walmuslimina walmuslimat alaxyaai minhum walamwaati ajmaina aama wa ila jamii ashaabi alxayraati min almuminina walmuminat